alors cadre d'une Ousmane Sonko rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal le premier ministre Ousmane Sonko a déclaré jeudi euh, que rien ni personne ne peut déstabiliser ne peut déstabiliser le Sénégal assurant que l'État a la responsabilité de veiller exactement à la quiétude des Sénégalais et à la sécurité de leurs biens alors cadre Ousmane Sonko nous euh, voulons aussi rappeler euh, ce fameux justement discours du président Macky au lendemain des événements de mars 2021 que ni rien ni personne ne peut déstabiliser exactement le pays syrien. Ah, c'est un terme politique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons confié les, les, les, les, les euh, de ce pays-là. Si on dit peut-être amna lu du nouveau wala kon amna lu ah xam nga xam nga bo nekké bo yoré état hmm euh da ngay informer Dans ce pays euh, tey bu waxee loolu xëy na peut-être il a des sources même tax tey li nga xam ni que mooy affectation. Euh, général Kandji général Kandji bi am na yeneen ñu si théorisé. Hmm. tu as vu am na yeneen loo xam wax nañ ko si. loolu du hmm. ma si dugg. tu as vu mais l'état la muy xam xëy na peut-être un civil comme Serigne Niang mën na ko bañ a xam parce que l'état kenn gënu ko informé wu tey ñoom balaa ñu tudd renseign balaa ñu tëdd renseignement yëpp daf leen di fekk fa ñu toog dañuy xam li xew yëpp tu as vu. kon donc boo waxee ne rien ne peut déstabiliser ce pays xëy peut-être il a des sources que nous nous nous nous avons pas en réalité Euh, peut-être bon ak pression bi nga xamante ni temps yi euh, surtout au niveau de la presse xëy peut-être ci angle bobu la waxé. maintenant bon fi mu mën camper débat bi ak wax ji nga xam wax na ci en ce sens là mooy que ni. Euh, xëy peut-être il a su quelque chose parce que Ousmane Sonko yàgg naa di ko théoriser il fait partie parmi les gens les mieux informés. même si Gourou Macky Sall. oui amoon xamoon na doon xew si daanu palais. waaw parce que am na ñu ko fa nekkaloon. Hmm. Hmm. palais beeg fépp ak ci armée bi ak ñeneen ak ñeneen ah c'est yaa idée. Hmm. voilà am na ñu ko fa nekkaloon ñu ko doon informer voilà c'était ça. alors. Euh, alors euh, mais quand même ni nous euh, lu rendre compte euh, que ce soit euh, journaliste ou que ce soit un opposant exactement c'est rien. décryptage décrypte sur les cadres exactement hmm? Waouh, bon hmm. xam nga bu waxee des fois parce que il ne parle pas avec tous les journalistes parce qu'il y a des journalistes très il y a des journalistes très crédibles dans ce pays qui font convenablement leur travail peut-être euh, mais le plus important il faut éviter certains discours surtout nag boy, gouverner aussi. Hmm. il faut s'attendre à à toute forme de critique. opposant. à toute forme de critique venant de de de de tout part parce que les critiques il ne faut pas que nous ayons une perception négative parce que les critiques sont constructives. Hmm. les critiques sont constructives critique day defal des critiques positives hein. euh, critiques da nga yor sa téléphone euh, di saga la neex la jambour, parce que également la liberté d'expression parce que souvent c'est des gens qui théorisent liberté d'expression liberté d'opinion liberté d'expression du ben boulevard oubi pour permettre à tout le monde de dire n'importe quoi sur les sur le dos des gens. donc la liberté d'expression existe et mm. garantie par la constitution mais limiter aussi limiter limité aussi la liberté d'expression doit orienter le citoyen voilà daf koy jox possibilité pour que nous manager son avis par rapport par rapport aux orientations par rapport à l'orientation des affaires publiques

way hmm. c'est une urgence. nañ goqi nañ goqi buñ goqee lañ goqi loolu xëy na peut-être mën naa dugaat ci sénégalais bi mën naa sax participer ci euh, ci circuit yi nga xamante ni tey fa lañ bëgg jaar pour wàññi le train de vide des li nit ñi jël te moom moomuñu ko rek buñ ko génne woon rek nit ñi mën a dund dund bu bu réew moo gis ndóol am fa réew moo gis ndóol am fa jafe-jafe am fa nit ña sonn. nit ñi bëgg a liggéey amuñu liggéey nit ñi bëgg a euh, euh, euh, gis seen bopp ci li nga xamante ñu bëgg a bokk te gisuñu seen bopp jàppal ni réew moomu ñetti nit wala ñeenti nit rek ñooy jël alalu askan wi di ci profito hmm. waaw loolu moo am ci réew yi nga xamante ni véritablement bëri na ay contradiction bëri na ay jafe-jafe maintenant nag li nit ñi jël te moomuñu ko buñ ko génnee woon rek ñu jàpp ni buñ ko génne woon rek ah, fàllu ah. buñ ko dugalaatee ci askan wi nga xam ne nag véritablement ñun suñu sonn gii ñu sonn ak ñàkk gii nga ñu ñàkk yàlla teguñu ko. ñu jàpp ni ce discours a été menaçant gisoo si lu menacé wu. non gisuma loolu xam nga dama ni dans le discours de Ousmane Sonko son discours d'hier j'ai pas vu gisuma fenn fu nga xamante ni véritablement mën naa ko jàppee comme une menace. Mm. Dont nag dinaa rebondiraat ci c'est le premier ministre qui accepter aujourd'hui euh, son son son accepter les critiques parce que wax les critiques sax wax sama directement il faut communiquer. régulièrement même si mënul sax ñuy jël téléphone def de minutes peut-être pour euh, barrer les la manipulation. parce que tay gis presse bi ni mu attaquer régime est-ce que bi

mais la communication bi régulièrement fay am solo. donc pour terminer ci logique hmm. je le répète encore une fois. Hmm. demal nga wëri réew yu bare yi ma wax ni réew bari na réew comme suñu réew mi suñu réew mi nit ñi bëgg mënuñu ko am. nit bëgg liggéey mënuñu liggéey nit dëkk ci ay ni réew moko gis ni ñetti nit wala nit ñoo jël alalu askan wi tok ci alal joju buñ ko ba génnee ko delloo ko ci askan wi da ngay xam ne nag ñun kon dund gu metti gii ñuy dund yàlla teguñu ko ay nit a ñu ko teg. Hmm. loolu c'est la réalité. voilà c'est clair exactement Serigne par rapport ak wàllu wunu me mbokk tasatatéri sànq ñu na gënoon daal di juññu par rapport ak mbiru ki nga xam ne que moo di euh, Doro Gueye bi nga xam ne itam jàpp ne dafa daal di euh, am malaise sauf si diwaanu ko tribunal bi euh, du nouveau